il a des millions et des millions de followers Nous avons moins de joie de vivre mais en vrai en fait ni ni mais euh, il est tellement doux ni raadu <laughs> duub. ah <laughs> dégg ma anglais aw ngeen leen fi waroon a woo mu ñëw toog. Ah, du du mooy suite hmm. d'accord da nga sant yàlla nag jullu si yàlla bi waaw mooy seen bàq bi waajur yi ah, sant sama yaay bu baax. Mhm. ndax lépp lu ma am sama yaay la. moo ma ñaanal moo ma dooleel. moo ma tàggat. ah lu ne dégg na ko ci début bi. Mhm. lu ne. xam nga buñ ko waxee rek ñëw naan ko sa doom ji lii mu ne leen moom a gënal yóbbu añ wallaay rëbës wala feneen ak feneen xam nga loolu tey mu dooleel ma ba nga xam ni ah tey lépp lu ma am rek moom la maa ngi koy gëm sama papa tamit tàggat ma teg ma ci yoon bu mm-hmm. jub mm-hmm. du ma tub ma naan du sàcc mm-hmm. ma def dara lu bon duñ ma ci lenn lu bon ma gis xam ne nitu jàmm nga waaw tey nag boo ma gisee ci nag bu la neexee nga ne kii waaye boo ma gisee personnel xam ni dama respecté ñëpp jox ñëpp cër bëgg ñëpp xam nga. non non da bëgg ñëpp sax mais li ma gën a marqué si yow Ketchup mooy sa engagement yow boo xasee ba bëgg nit ay ku laal kooku. moo tax man ma gën a nekk sama xarit. mais yow dama laa bëgg ba yow dama laa bëgg. <laughs> plateau bi dafa riche plateau bi dama koy suivre vingt quatre heures sur vingt quatre. Cormi sama xarit la sama rakk la sama sista la sama frère la sama <laughs> doomu ndey <laughs> ñu bokk lépp frère mu bëgg sama yaay pap ah kii euh, bébé baas ah, ah. ko fonk ko mm-hmm. confident am xam nga bëgg sama mag Pape Diouf mm-hmm. bëgg ko te daw si dara xam nga mm-hmm. maanaam gis nga boo boo ragalee féete rek dem seytaane wala bu yàggee nit ñi ragal la man tey am na kilifa yu bari yoo xam ne suñu ñemee ba bëgg ma mhm. naw ma di ma woo chaque jour am na kilifa yoo xam ne pour nga woo leen mhm. jot leen problème la mais man quatre heures du ma leen ko wooyee ñu jóg mhm. parce que xam nañ ni am lenn lu may tricher ay ñaari nit yu dëggu bëgg ma moo gën juróom fukki nit yu fekk yu ma bëgg ah parce que amul lu ma njëg mais ci bëgg nii rek maa ngi nii gaynde gaa ngi nii xam nga waaw show bi jour ak euh, euh, snap yi yaa ngi ci live yi parfois ci actualité yi sax ñu lay dégg ah, nga ci nga ci. maa ngi fépp noonu laay doxee oui parfois nga jël nga jël position oui nga gis nga wax du ma wone. Mhm. mais su leen neexoon léegi ma génnee samay maanaam tey am na tele yoo xam ni tey faalewu ma leen ci visibilité.

su ma neexee ma dem fëgg bureau bi naan Ndour mhm. mu yëkkati téeméeri junni may ma mm-hmm. lu ma bu baax de mm-hmm. ma dem ci Youssou Ndour mm-hmm. mu may ma téeméeri junni ma ndax sekk naa ko ñoom te bëggee nañ ma noonu dem ci Pape Diouf mu yëkkati un million ma ma dem ci suba teel mu yëkkati un million may ma ma dem ci Marcel Diagne mu yëkkati may ma chaque semaine nag laa la wax mën nañ ko ci man ma dem ci Ndoura Balde Abdourahmane mu yëkkati un million may ma chaque semaine de mais amul mucc parce que ñooñu tamit tey dañoo am famille. te tey amaana mun nañ la bëgg-bëgg boo xam ne tey dinañ la jàppale ba gaañ seen bopp. tey yow mi nga xam ne yaay nit ki personnel yaa war a am xel. dem wuti leneen loo xam ne tamit. tay ko amal sa bop ñom dinañ la ci mëna jappalé mm. tay bo sa projet ko ko Diouf projet mm. buñ la ci yoon mm. nga sa gën jour ci c'est important non non sa non fay di non di man loolu non ko non non non man non non ma la parce chaque jour fonk loolu moo tax fonk liggéey gëm sama bopp ah, te teewul sama nit ñu baax mm-hmm. dama leen di jàpp fësal leen ku mu fës mm-hmm. ku ma ci mere ci loolu ah, yenn sa nga snap fi ngay liggéeyee surtout américains yi ngay waxee ak ñoom ba pare nag nga nekk nit ku am ful la parce que kenn la yab ci américains yi li ngay liggéey dama lay suivre mm-hmm. ah. saa yi ma bëggee dem vacances dem vacances saa yi ma bëggee màggalu suñu baaw bi dañ ne ma dem ma I'm gonna go by force. Sirin Tuba is the best guy in the world. Yeah. I'm gonna go. you know, no, you just come back. I'm gonna be my baby. ku xam-xam ne Amérique deux semaines vacances lañu may. mais man maa ko imposé foofu. waaw ma neexee dem toog ba mu neex ma ñëwaat. waaw ndax bu liggéey jotee dama koy def. bu jog jotee ma wane ko fa. Mhm. bu fulla jotee ma wane ko fa. su kaf jotee ma kaf fa. du ma fa am problème ba xam nga lu ma lu ma bëgg dama fay am. mais liggéey bi d'ailleurs xanaa loolu tax combat. Euh, lamb ji nga xako won ginaaw ginnaaw tuuti benn yoon rek nga nga bëree delu dellu après xamna naa ne liggéey dem ak ñew bi moo tax. parce que lamb day am fo xamni day tok hmm du rogala deug la legi bu tok ci ngay dem lijeenti sa bop comme moment yi nekk ni moment pandémie bi Covid bi mhm. mbër yëpp do nga xamante lamb rek nga dem dañoo toog croiser les bras. léegi bu rogalaan nag. Mhm. ñëw bokk ci rang bi. Ah, waaw yàllaa ma def nit ñi bëgg ma. man aduna du neex la ñu gis nii. doo fay. ba nga fi woon loolu dëgg la lii laa lay <laughs> man. quatre def ci làmb trois yi fiiwul trois yi boobu télé am <laughs> trois yi bu njaan laa bëree beneen bi xaw ma parcelle uh-huh. beneen bi xaw ma kër jogo yi uh-huh. yaa dégg benn bi siiw mooy makkaaji mbay 2STV yi boobu tëg ba ngay diwoo këccëg ba ba may diwoo këccëg moo nekk nii ci image bii mhm. léegi bii nii bii ban la. non bii Alaaji de. bii moo indi coow la. ñeent bi coow la ba xam ne tey coow li bare na. nit ñaa ngi gëti naan kecco kecco. ma xam ni. sénégalais bu bruit di bruit nii. dañu lay jàpp di la këyam këyam yi. waaye bu xawee ruus tuut. Mm-hmm. ñu bala fa nga waye di. Mm-hmm. dëgg ma profité dem ambassade États-Unis fa alaaji mbay mun na fa di di guerre <laughs> lu ñu wax mu ne ah, jéema def affaire right ma la ko xaaral rek <laughs> dem états uh-huh. uh-huh. man la Ketchup maa ngi nii man la Ketchup def naa sama promotion maa war a dem liggéey yi uh-huh. après na ñëw daan ay ba may ba may wax ak waa ji kii kii kii kii joxe design dama ne ko Modou Lo laa bëggoo bëreel te maa ngi nii jantal booy laa. su mhm. ma entraîné bu ñëwee damay am doole. mu ne ma ah di nga ñëwaat kese di nga ñëwaat sama doom yeeg yow dañuy de paa yi traduire laa wax. di dem di ñaari ambassade ah, mhm. sama doom yeeg yëpp da lay di xëpp ay këccu ba gii ma ne ko waaw. léegi nag fu mu nekk nii. Mhm. damay dem ñëwaat mu ne ma ok dinaa la may 3 mois nga dem. mu may ma 3 mois bi ma demee. xool situation bi. <laughs> mu ji ni ñëwee baaxul. ma woo yaay mu ne ma ah jàppaas baa fi de weer léegi mu dee ma xool xam ni su ma toogaatee Sénégal bu lamb ji ruusee nu may def mm-hmm. fan sii nag ma noo ñëwaatal da nga oh, ah, ma tëdd nelaw ne fas yii <laughs> ma tuuti ñu <laughs> <laughs> jàpp ci yàlla tey am na ñoo maa ngi leen bàyyi woon ci làmb ji ñuy ràññee. Mhm. yóbbu wuñu ma dara loolu mooy wane ni yàkkamti baaxul te wërsëg yàlla ko yor. ragal la dama daan fekk sama xel mi dalul. mënoo mhm. am visa États-Unis directement musuma am bu Maroc. Mhm. musuma am bu Espagne musuma am bu Mali musuma am uh-huh. jékki-jékki ñu jox ma Amérique. loolu loolu moo yóbbu nelawatuma guddi nelawuma bëccëg. xam nga sénégalais rek yenn say bi may dem di ñaani maa ngi fa 40 mbër mm-hmm. ñu refi la ñëpp may ma léegi bi ma génnee mbër yooyu xam ne am naa pour man mm-hmm. ñooñ dinañ fa delluwaat ne leen kii ngeen may deful dara ci làmb mm-hmm. ñun ngeen bañ ñoo may xam nga xalaat yooyu ba pare kañe yi <laughs> sama passeport bi foo jëm ko lekk ko <laughs> bañ mu tooy passeport bi su ma compte compte naa alaaju bay sama kobaak moom comptage bu ma deux jours yu mat ndax passeport bi chaque jour maa ko dugal ci biir fii gan <laughs> di toile la takk

bi may njëkk naan non tey xam nga rek gars yi. waaw dañ lay yóbbul tey xoolal da ngaa war a yëngal bi nii. <laughs> na ko njàmbaar te ma laa woon sama visa bi man damay bañ ci summi sama loxo bi wala toj sama bët bi fii ma yàqu de ma yor naa visa mi ngi nii de njàmbaar dimbali ma rek ma ñëw xam nga relax bëre normal kon. kon daal yëpp yi <laughs> visa bay taxoon daal affaire yi ci moo may xal sama lamb yëpp léegi ku na ginnaaw nag léegi combat bii ñu tëgg nii ci saison bi di ñëw ngi dem yow macha allah yaa ngi dem liggéey di ñëw léegi lan bi euh, combat de hmm? mooy mooy fas yi taxaw ci buntu kër yi hmm. ñi nga xam ne boo ñëwee xam nga yenn saa yi nga jékki-jékki rek ne nii attention jékki-jékki rek ñëw ba ci buntu kër gi nga xëppoo ay galaaj ñi affaire ñii ku ne nit ki ku ne xana boppam dëgg la man bu ma ñëwee nii ci buntu kër gi xamal taxaw gaay naan kecca bi ma naan nii rek sama xel boobu ana passeport ba wallaay sama xel bu dalul yéen ma naan leen nii rek xam naa ne ñoom ñu ngi may supporté waaye tey bu ma demee ndam bi ma ko am ndax sama xel mi new suma man boobu maa bëriwul man dara bëriwul. question bi maam ngi woon ak sa passeport. bi may bëree passeport baa ngi fi. nii la. du laal mbuus baa parce que wóoluwuma kamoot yii su ma ubbee sama kamoot fekk fa ay mbóot fekk fa affaire <laughs> ba pare du ma ko dénk kenn da nga koy dénk nit muy réer na fu mu nga nekkaat fi yeneen procédure ak ay affaire yooyu. waaw waaw mais sangu di nga ko teg fenn. sangu day dem ba ci jur su may teg sangu bi côté bi lay nekk. <laughs> waaw bi nga koy comment ça s'est passé ba nga ne cëpp am rek ba wàcc ba xam ba gis aéroport ba américain yi lay miim sa coono. la xaaree américain yi boo xam man sax man nant laa. Euh. man Gambie laa nekkoon. waaw jàng naa fa tuuti anglais ah, <laughs> mais bu ñu ñëwee wax man maa ngi yor anglais gambien nag. Mm-hmm. dañuy ñëw ne ma wasa ma ne yeah do <laughs> ñëw jël who is this ma ne leen yow di rasu la <laughs> africa ma ne la big rasu la kécco loolu afrique boobu amérique ne ma ooyee. non mais que jëm américain ah, bu wax bari soo déggul nii day dayal. Uh-huh. ñoom boo nga dem rek. lakkal <laughs> anglais bu amul fenn rek. ñoom explication amul jot boobu ñoom. dañ lay tamponel nga jàll. Uh-huh. dugg ci dëkk bi. Uh-huh. xam nga ñëw rek miin. ndeysaan macha allah. li ma euh. njëkk a def ma topp place yi nekk foofu yëpp di wër boutique bu ma gis. am lu fa job Diop kañ moom. Ah man kenn du ko jàngale kenn. Ah kenn du ko jàngale kenn ah li bon mooy ñëw toog di yaakaar ci nit. Mhm. da ngay jëm da nga ku ne mën na laa dimbali mais da ngay jug nga farlu yow tamit mhm. sa bopp. c'est ça man Amérique nekk naa ba fu mu nekk nii. barke alxuraanu karim ku mun na weddi. Mhm. billaahi wallaahi tallaahi barke Cheikhul Khadim. benn nit moo ma fa mës a jox liggéey. benn doomu aadama te américain la. comme man. te xam nga tax mu jox ma liggéey. da doon liggéey fu baax mooy fi ma nekk nii. hôpital bi gën a mag ci États-Unis laay liggéey mooy Presbyterian Hospital hôpital bi gën a mag te américain boobu soo gisee mu dugal ma dafa am feneen fu ñu doon liggéey man moom yu see ma fa mais tey ñi jàppale ci ay Sénégal liggéey yëpp jox leen liggéey tey su ma leen limoon tey ñi ma foofu fa dugg liggéey njëkk def mooy laaj cek waaw ñu ñu ñëw ñu ñëw léegi ci sa ci bi nga xamante ni Sénégal Entertainment Group ñoo koy rek amal sa moo xam ndox ñëwul de ragal kooku di tapé. pour ñu leeral ko téléspectateur eh, Alaaji Mbay laa mi rek loo rëy nii bu leen gisee nii yéen la man su ma jàkkaarloo mu ni du wax non du wax mais sa koy laaj sama revanche day am force mhm. man day yoon à tête reposée lay mhm. nekk ma bëre combat boobu bëre bàyyi. amul ci àdduna. foofu daan na laaj may foofu ma woon Sénégal yi ma ko. waaw waaw su ko léegi nekk mais circonstance taxoon. dal na uh-huh. am naa ay Abdourahmane Balde mm-hmm. ay Pape Diouf. ñëpp lay jàpp Marcel Diagne ay Bébé Baas <laughs> ñooñu Corombaan am Birane Ndour am teef yow déggoo de. Uh-huh. léegi fu la neex dem. fu ma neex dem ci àdduna. waaw waaw amoo sens interdiction ah, xam ngeen coono bu mu dajoon ci passeport sénégalais bi takk ko ci mbuus bu amee passeport américain yi daj na lu raw loolu fu muy tëdd buy sinap da koy teg fi <laughs> sénégalais preuve la xam waaw de te dañu lay xam nga lu wax passeport jàmbur la téye. passeport li bi naa foto gëmuñu ko ñu ne force sama foto la. te ñëw ba Paris sax fekk naa la bari. su ma neexoon nii nii xam nga nee nañ frontière ubbiwul. Angleterre su ma neexoon nii nii Angleterre laay dem nii léegi léegi léegi dañuy ubbi frontière ñu ne dañoo tëj de avion moo may yóbbu. man fum nek ni chaque mercredi ambassade États-Unis may wo dima ma laaj ndax yaa ci jàmm. Mhm. ndax laalu ñu la fi. Mhm. ndax amo kenn problème parce que je suis sécurisé. ah oui américain la en tout cas je reçois beaucoup de messages ay nit yi nga xamanteni euh, ñi ngi rek euh, daldi voilà les gens ils ah, t'adorent ñi nga xamanteni ñi ngi rek daldi di bokku na ci Mado Mado instant mom tay amon na waxon na ko dem mu ñëw def yewulen mu mu bañ tay bo fa nekkoon ni nga gis ketchup bi nga xamanteni ni mom Mado non Mado beneen yoon ngay ñëw mais tey <laughs> tey sa gars yi dama ko sentir quoi bàyyi ma nii rek ma toog maa ngi nuyu sama frère nag Cheikh Diallo waaw Pape Cheikh fa bokk ci samay nit ma bëgg ko nawloo ko fonk ko kenn ko laa mm-hmm. Pape Cheikh ku bëgg jàmm mm-hmm. na ko bàyyi mm-hmm. Birane ku bëgg jàmm na ko bàyyi Marcel ku bëgg jàmm. Noura Balde Noura ku bëgg jàmm jàmm jàmm jàmm. Tarba Tarba Mbaye. kooku sama rakk. waaw kay gis nga maa ngi lay suivre. yow xam nga yow. <laughs> Ah, waaw waaw Karim merci. Karim kooku c'est mon frère Bale. <laughs> Modou Mbaye. kooku c'est mon ami de cœur. <laughs> Pape Diouf c'est mon ami de vie. en tout cas mon système de bëri. koy bëggee bu baax. dinañu ñëwaat ak yow parce que il faut nga tàggoo. Ah, dina dina ñëwaat ci yow.